Euh, Bassirou Diomaye fay préfère Macky Sall à la place de Amadou Ba bonne réaction ngay am ci kàddu yi nga xam ne moom Bassirou Diomaye Faye yëgit na ko. bon euh, xam nga yaa dafa am benn affaire boo xam ne dafa am ba des soo ñu déggee Bassirou Diomaye fay li mu wax muy wax ci sur la déclaration de patrimoine mm-hmm. xam nga déclaration de patrimoine au Sénégal loi 2013 1452 je pense moo ko moo ko moo ko. moo ko moo ko tëral nan lañ koy defee mu am xam nga dama dégg Abdou Mbow muy wax ci déclaration de patrimoine muy wax ne euh, di xas opposition bi ne ñii de dañuy wax ci déclaration de patrimoine mais xamuñu sax déclaration de patrimoine Amadou Ba def na déclaration de patrimoine may expliquer mooy loi 2013 14 de boobu noonu xam nga déclaration de patrimoine bii nii soo xoolee jomaay euh, dafay invité Amadou Ba pour mu def déclaration de patrimoine c'est pas une obligation par euh, c'est pas pour Amadou Ba mu def ko mais si il est élu si il est élu ce sera une obligation mu def déclaration de patrimoine mu am ñaari déclaration de patrimoine yoo xamante ni loi bi da ko tëral bokk nañ ci déclaration de patrimoine bi muy képp koo xam ne day gérer budget bu dépassé un milliard maire yeeg yooyu nga xam ne sax dañuy déplacé wala nga am nga nga diriger benn euh, structure boo xamante ni budget bi dafa dépassé un milliard yoon dafa ne da nga war a def déclaration de patrimoine si vous en si vous vous en souvenez bi ñu falee Abdoulaye Wade Abdou Diouf Macky Sall ba pare. Mm-hmm. deuxième mandat bi ba ñu ko ko falee deuxième mandat y un débat qui a été soulevé dafa war a defaat décla déclaration de patrimoine mm-hmm. ñii ne noo war ko def dafa war a bàyyi ba muy ba muy ba muy génn benn yoon nga war a def déclaration de patrimoine mooy bi ñu la falee ba pare tey jii Amadou Ba bu ñu ko falee ce une obligation bala muy prendre fonction mu def loi boobu noonu 2013 14 52 dafa obligé Amadou Ba mu def déclaration de patrimoine léegi nag c'est une invite invitation la boo xamante ni bu euh, Diomaye def Amadou Ba parce que tamit. Euh, pour règle de bonne gestion ñu wax ne yow kat lii nga jaar fii nga jaar est li nga am nii fi nga jaar war na la ko may nga am ko ñoom ñooñu pour man du obligation mais waroon nañu yegg ci boppam pour wane ne seen loxo dafa set ñu wax Sénégalais ne ñoon lii la ñu am te lii poste yi lañ occupé poste yi lañ occupé dafa am ñoo xam ne depuis ba ñu leen xamee ba léegi c'est des fonctionnaires ñu am beneen dara dara leneen lu ñuy liggéey mais ñooñu comment ça se fait on se retrouve avec des c'est ça le le problème comment yow bu nga juddoo ba léegi mosoo liggéey leneen lu dul nekk fonctionnaire mais tu te retrouves à être multimilliardaire ou bien milliardaire c'est pour ne pas dire multimilliardaire loolu tamit c'est un problème et sénégalais yi pour man balaa ñoo voté dañoo war a xam naka kii ñii nga xam ne moom lañu ñuy voteel loxoom set na fii la jaar lii la am ak lii la amoon am si ñoo xamante ni léegi nag bu dee yow nag bañ nga ne doo ko def. mais c'est aux Sénégalais de prendre leur leur responsabilité. le responsable. Mais là, on a, on a, on l'impression que euh, le clan de Amadouba, au lieu de, répondre à cette question due à la transparence, ils veulent orienter le débat sur le plan de l'expérience. Non, ils font du dilatoire. Le clan de Amadouba fait du dilatoire. Amadou dilatoire mooy dañ on vous invite ci lii au lieu ngeen wax ci ngeen di wiiri wiiri rek wiiri wiiri euh, Abdou Mbow mhm. dégg naa ko mu tontu mu ne Amadou Ba def na bokkul. c'est c'est deux choses totalement différentes la déclaration de patrimoine en tant que ministre du budget ou bien ministre des finances bokkul ak déclaration de patrimoine bi nga xamante ni moom la ñu euh, moom la ko jomaay di invité pour mu def ko ñun ñu xam ñaar parce que en tant que ministre xam nga ñoom ñëpp ku ci nekk def nga da ngay def déclaration de patrimoine soo déclaré sa déclaration de patrimoine Macky Sall moo koy jël téye est-ce ngi dégg bu baax y a critiquer ce fait, le fait que il y a des gens qui disent que Macky en sert comme objet de bataille pour me faire du chantage à ces ministres-là parce que su fekkee yow bu ngay dugg ñaari kër nga am tu te trois ans après avec sept maison ñu def enquête xam ne loolu loolu war nañ laa mën a laaj fan nga ko jële mhm. te loolu of nag am na possibilité pour walla parce que Macky Sall bu leen bu ñu fàtte Macky Sall bi muy ñëw dafa waxoon ne dafa waxoon ne CREI CREI. ñi jàll la le régime sortant. Mhm. OFNAC pour ñun la. pour ñun tout à fait. mais il se trouve que ne OFNAC mu ngi def liggéeyam ñu bëri ils sont épinglés parce que déclaration de patrimoine boobu OFNAC amul droit publier ko. mais malheureusement seulement que même si bu dee OFNAC mu ngi def euh, euh, euh, kéem kàttanam mu ngi def ay rapport bëri na ñu muy épinglé ñu war. mais ça sert à rien justice n'a jamais été faite xam nga OFNAC j'ai vu que ne ses ses pouvoirs on été hmm, élargis. oui récemment mais xam nga. qui peut plus peut le moins yow pouvoir yi yi euh, of nag lu ndaw li mu doon def mais jëfewoo ko liggéeyu ça sert à rien au population sénégalais ak aux de bon gestion normalement of nag c'est les rapports de of nag dafa war a am suivi mais depuis que Macky est là wax ma kenn Macky laa gis of nag épingle ay ministre ba pare. normalement leeraluñu ba pare mu ñoo ñooñu nga xam ne dañuy épinglé mu def seen promotion il faut que c'est il faut que ça ça aussi arrête gis nga àdduna dans il y a de bonne gestion yoo xamante ni gis nga on ne refait gis nga si tu es de mauvaise foi. loolu noonu mën nga ko utiliser mais nag les sénégal il veulent savoir et ils ont le de savoir c'est pas une obligation pour Amadou Ba mais Amadou Ba ñoom war nañoo xam ñii nga xam ne kat dañoo ñëw di dagan suñu baat. lii la am. ci am-am est-ce que li ñu am ci am-am ni fi ñu jaar yëpp war na leen ko. d'accord waruñu ko bañ. d'accord alors euh, reste à voir alors euh, Thioro Mandela Bassirou Diomaye Faye sort de prison dès sa première prise de parole Macky Sall n'est plus notre adversaire il s'attaque à Amadou Ba jusqu'à mu koy invité muy def déclaration de patrimoine euh, nan ngay jàngatee posture Bassirou Diomaye Faye diggante di bi ñu toll nii surtout digganteem ak Amadou Ba bi nga xam ne ñoo bokkoon administration quand même bi mu dem banaan président Macky Sall malgré sax li mu def ci réew mi yëpp ci ay ci ay ci ay. Euh, euh, njuumte njuumte euh, ci ay kàddu.